foofu laay ñëw nag bu ko defee joxe kàddu gi ndax waxtu waa ngi dem te dama fanaan i démb maa ngi maa ngi yendoo conférence Daara Jolof guddi gi ma daw 15 kilomètres de Daara Jolof falaa fanaan gàmmu dëkk bu ñuy wax jàmboor xaadim waaw da ngay yërëm te maa ngi waajal suñu bés bi insha allahu jërëjëf Diop waaw kañ yàlla bu leen ko ñàkkati ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne léegi nag bëgguma mu doon mu bëgguma way yi di yàgg ndax ci conférence laa ne xoola dama leen di laaj rek ngeen laaj borom parasol ba mu wax ma ma wax mbooloo mi Seydi Hadji Malick laay laaj yonent bi nu mu meloon te li moom la doon ma kaana yaqulu xayrul xalqi munfari li anna dalika li ma Seydil Hadji لأن ذلك خيم النبس والبارام يلا يلا فير يا جماعة أجمالي فوالا مام سيدي أجمالي نير يلن سيال محمد صلى الله عليه وسلم موكرا يوجد أيوه سلم baal ma rek ñu daaneel ndax du fi xaj tem la boo xam ni tem la boo xam ni du jeex damay jël rek cuqat cuqat cuqat du jeex waaye Amine Ndiaye waaye bu ñu bëggee bu ñu bëggee suñu doom yi yaru am na ñu ci am ay responsabilité ndax bu ñu waxee éducation xel yépp day dem ci ministère de l'éducation man dina ma jaaxal suñu doom yi bu ñu sonnee ci ñoom ba ñu war a dem jàngi waxuma ñu ne privé mais xale yi nekk public fan la ñuy jaar ba yaru ak grève yi waxuma nag ni gouvernement am dëgg waxuma syndicat mais daal xam naa ni grève bi moom bokk na ci liy handicapé moom yaru xale yi parce que bu njëkk sa doom ñun bi ñuy jàngi la mais suñu sëriñ huit heures bu déparé moom mu départ moo ñuy jiitu daara ja danaan huit heures ngeen génn kër gi par exemple 8 heures le 8 heures biir na leen fa fekk wàcc 11 heures et demi moom mooy ci kër gi ni onze heures et demi ngeen kër gi ngeen génn daara ji leen ba midi na leen fekk kër ga mu leer ñu ne accès dañuy fekk góor gi mu toog heure jàng ak heure wàcc daf ñuy contrôler mais léegi fan la nit di jaar ba contrôler doomam sa doom bu demee jàngi léeg-léeg mu dem prof bi waroon a ñëw huit heures dix heures ñëw waaye prof bi war a ñëw dix heures midi du ñëw te yow doo ci xam dara léegi ak jamonoy tey jii ni mu mel ay moroomam jël ko ànd ak moom taxawaalu ji te treize heures la waroon a wàcc suur boobu mu taxawaalu dix heures ba treize heures ñibbi seeg saagam ni pat nooy xamee ne daa taxawaalu ji woon ba di ko corriger kon responsabilité bi nañu xam ni grève bi bokk na ci li yàq yar bi bala may wax yonent bi nu meloon sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li yàq yar bi mooy télévision yi ak rajo yi ak internet bi fokk ñu contrôler ko am na émission yoo xam ni neewuma jullit du ko dawal ndax loolu mën naa am dina ndax yoruma télé bay wax yenn yi waaye dama ni am na émission yoo xam ni am na heure boo xam ni warul daw am na heure boo xam ne am na émission boo xam ne benn télé waru koo wane am na jëf joo xam ne benn animateur u télé waru koo jëf ndax dañu ne lil muallimi wadifataani tarkun wa ixfa képp koy jàngale am nga noo war a mel ñu ne nan la ñu ne waroo def naka sudul noonu wala boo koy def na nga ko làq bu baax donte yàllaa ngi lay gis làq ko ñu ne lu tax ñu ne bépp jàngalekat am na ñoo xamee ni moom rek la ñuy roy lu mu def ñu def ko mais suñu gars yii nekk ci télé yi bari na ci ñoo xamante ni tey ay star lañu yoo xam ne xale yi dañ leen a bëgg di leen toppandoo kon ñooñu ñi ci nekk ci yoon ñu xam ne ñu ngi defar ci réew mi mais ñi ci wàcc yoon nañu xam ni éducation bu manqué bi ñoom am nañ ci part de responsabilité léegi ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne maa gën a yaru ñëpp ñu ni ko yaa rasulallahi noo def bëgg gën yaru ñëpp mu ni parce que ki ma yar bokk na ki leen yar ñu ne ko ku la yar mu ni adabani rabbi ba ahsana bii man sama borom moo ma yar yàlla te bi mu ma yaree ba pare moo rafetal sama yar ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu amee deux mois ci biiru yaayam ci la baayam faatu malaaka yi bind yàlla plainte daal ni ko dañuy boole yàlla ak yàlla yàlla ni leen lu yàlla def ñu ni ko yàlla suñu yonent bi nga xamante ni mooy sangu àdduna ak alaxira dafa rey papaam mu nar doon jirim te ëllëg ki war a jiite àdduna bu yaruwul fan lay jaar parce que bu amul papa kat moko yar yàlla ngi leen ee la shakka innani xaafiduhu wa rabbuhu awnuhu kafihi fil imami amul problème ki ken doyu ma ci mako yaral sama bop motax tax yonent bi neena man yàlla moma yar mo rafetal sama yar motax ma gën a yow ñëpp Seydi malik ñu ni ko yonent bi yaram nan la demee woon yoxalaaj Malick moom Seydi malik ni ma kana yakunu khayrul khalqi munfarida maa ngi toll ci xale bi lekk nga war ko yar ci nu ñuy lekke boromam Seydi Hadji Malick radiallahu taala anhu léegi am na ku wax ni xale la ñuy yar dama koy dindi ndax jëfi Seydi Hadji Malick ci dafa mën a yar dafa am génn góor dafa ñëw ci kër gi gane si kër mam Seydi Hadji Malick waaye bu dee lekk rek day tuur Seydi Hadji Malick nag bëgg koo yar te xam na ni gan la bu ko waxee mu gis boppam nee nañ Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh moom ak Serigne Babacar si ñii ne El Hadj Mansour ñoom la boole ni leen dem leen bokk góor gi ngeen añ wala ngeen reer ñu taajal góor gi añam wala reeram Cheikh El Hadj Mansour wala daal ñaari jabootu maam Seydi Hadji Malick gi El Hadj Abdou ca la bokk ngir ma wax lu ma gën a wóor ñu toog ñoom ñaar Seydi Hadji Malick ki ñu taajee reer bi mu ñëw jël yar jox góor gi ni ko sa gaay yi nag dañuy lekk di tuur. waaye ku ci tuur rek na yar gi dal ñuy lekk góor gi seetluwul xamul ni lu ñuy ko bëgg a wax mais bi ñu lekkee ba pare Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mar loxoom ka mu bokkaloon mar loxoom ba mu set ñu jóg raxasu góor gi ñu jël bool bi du ñu jëlee bool bi góor gi gis ni moom fi mu toogoon mu ngi fees dell ak ñam bi mu doon lekk mu ngi tuuru Seydi Hadji Malick recevoir góor gi góor gi ni tëll yem ci Alaaji Malick gi yuuxu ni ko si yaa mën a yar mu ne ko ah mu ne ko sama ñaari gaa yi nga naan dañuy tuur ba taxoon nga jox ma yar ci bu yoon amoon rek man la ñuy dóor yar ci ndax ñoom yar bu lekk bu rafet la ñu lekk benn pepp wul seen côté man góor gi kay maa doon tuur waaye bis ni ki tey bàyyi naa ko ndax sa yar bu rafet bul way bul way bul way waxoon naa ko bul way bul way maa kaana yakulu xayrul xalqi mun faridan foofu laa li anna dalika xiimu nit si wal baraka kon maa ngi ci lekk moo ma dugal lool li nga way lekk lay wax alaaji maa di ne maa kaana nekkul woon moom yonent yàlla Muhammad yaa maa kaana nekkul woon kan kaana ja ki gën ci mbindeef yi yaakulu di lekk mun faridan di aji wéet daawul lekk moom rek kon bàyyil xel ni sa doom boo mu yow ci wàllu lekk fokk ngay bokk ak moom di ko wan nu ñuy lekk xam nga lu tax alaaji Malick lépp lum la nu yonent bi daawu ko def rek te parce que def loolu araamul nee na la yonent bi daawul fayante lu ñaaw parce que fayu lu ñaaw araamul yonent bi daawul lekk moom rek parce que lekk yow rek araamul xoolal xam nga lu tax alxuraan moo ni laysa aleykum junaaxun an taakulu jamian aw ashtaatan alxuraan ne bu leen neexee ngeen servi ci ay palaat def self service kenn ku ne jël sa palaat servi sa bop nga lekk bu leen neexee ngeen def ci palaat bu mag wala booli yéen ñëpp ngeen dugal seen loxo ngeen lekk kon ñaari yëpp alxuraan nee na dara newu ci bàkkaarul laysa aleykum junaahun amu leen bàkkaar an taakulu jamian bu ngeen lekkandoowee ci benn bool aw ashtaatan wala kenn ku nekk jël palaatam beru fële lekk amul problème alaaji Maalik ne yonent yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu tànnoon mooy buy lekk lekkandoog nit ñi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu jëm fu ñu jëm man sax bu ma demee conférence man mii nga xam ne ak lafarga rek laa bu ma demee conference wala gàmmu bu ñu yàkkee añ yi au lieu que ma toogandoog nit ñi lekkandoog nit ñi déedéet damay wut fu ñu ma ber ñu naan sëñ bi du lekk ci biiri nit mais da gën nit ñi ba doo lekk ci biiri nit lekkal baa nga bàyyi mais gënoo nit ñi ba doo lekk ci biiri nit te nee naa xale yi may àndal nee naa leen lekk ci biiri nit sax a gën a wóor ndax lu ñu lay def yéen ñëpp ngeen bokk ko waaw waaye beru da ngay dem ci gàmm ñu naan eh. te eh, jëlal suux boobu tegal ko sëñ bi bi booru sëñ bi la. ñëpp di gis da ngay dem day dayam. ndeysaan. defaral boolu sëñ bi bu baax eh waa jëlal res bi defaral sëñ bi eh sëriñ dañoo bëgg col col côtelette jëlal côtelette bi defal ñëpp di dégg liñ la war a tegal ba yëpp dal ci te nga bëgg la ñëpp bëgg nga wéet yow kese lekk ko da ngay dee. kon mbokk yi lu waral yonent Yàlla Muhammad daawul lekk moom rek Seydi Maalik ni li an na daalika ndaxte loolu xiyamun nig si loolu dafa bokk ci ci jikkoy siis wal barami ak soxar kuy lekk yow rek souvent day waral loolu te xale boo koy ber moom rek muy lekk li ci day waral bu ëllëgee bu demee ci kër war a bokk day am problème mu bokk moo tax jàngal ko bokk parce que tàmm bokk ba pare di lekk yow kese moo gën a yomb mhm. tàmm lekk yow kese ba pare bëgg a bokk xam nga mën ngay bokk ba pare du tere yow rek nga mën a lekk mhm. mais yow kese nga tàmm lekk ba pare bëgg a lekk doog ay nit boobu problème la mhm. moo tax ci début bi nga koy teel a tàmmal nu ñuy tibbee nu ñuy lekkee yonent ci Yàlla Muhammad bàyyi wuloon dara lu lekkandoo naag xale bu ñu Abdullah ibnu Abbas naan ko lekkal ci sa kanam xoolal sa kanam dooy sàq bi na moo na nga wanaasu ba mu àgg bu àggee nga doog a tibbaat tibb bu yem nga sàqami ba mu mokk ni ko te nag bala ngaa lekkaat beneen ñam bi ci sa biir na dem ba rees mbokki jullit yi lii la ñu leen andiloon fii du fi xaj ndax waxtu waa gi dem te wax dëgg yàlla incha allah fi ne nii

ñu wàcc alquran ñu introsé leen kenn ku nekk tari bu ko defee ñu jël seen ay diplôme jox leen boobu promotion génn beneen promotion wara a dugg ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yëpp di jéggalu tàggkatu yonent bi ñi ci taabal ji maa ngi leen di jéggalu ndax tey dama indi beneen façon ndax bu a respecté thème bi loolu moo tax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu